asalaamaaleykum eh, ginnaaw bi leen nuyu ziar leen dañuy ñëw rekk eh, ci ay vidéo yoo xam ne dañu ko envoyé woon eh, bi ñuy ñëw ci gàmmu gi mu nekk ay quelques vidéo yoo xam te ni suñu benn xarit moo ñu ko envoyé mu nekk ay vidéo benn femme ñu ne Kaolack la dëkk ci waa seen Petit Galle la bokk ci information yi ñu ko waxee d'abord balaa ciy continuer mooy ñun duñ partager vidéo jàmbur ñu dox ci loolu bi ma gisee vidéo yi li ma si gën rek mooy. Euh, naka la nit di jëlee vidéo jaambur di ko envoyé doomu aadama naka la nit di jëlee image yu di ko envoyé doomu aadama wala sax ak bonte bu mu mën a doon ak lu mu mën def ci erreur sa yoon nekku ci yow mi koy partagé jàppal ne am nga rek da ngay xool bu leen daloon tey noo koy dunde maanaam def na seen bàkkaar euh, def na lu bon def na lu ñaaw mais loolu digganteem ak boromam la. tooñu la yow doomu aadama bi te jigéen bi dem sumeeku nekk ak góor ak lu mën a def seen bàkkaar la ñoom yàlla la ñuy jéglu bu leen di jégal jégal leen te moom borom yërmaande la yow nag am nga droit nga yedd doomu aadama nga woo ko ci sutura mais jël vidéo jàmbur partagé ak lu mu mën a def waxantuma la ak ay awraam nga partagé ko lépp lu ñaaw loo xam ci doomu aadama nga mel ni yow yaay yàlla yaay buum di mi te doo xalaat benn yoon sa desu dee gars yi sutura baax na trop bi ma ko gisee nag wax dafa de yàlla ma ne lii nii pourtant ki ko njëkk jot su ko effacé woon du yegg si fii kon nan ni rafetal te xam ne àddina bi jeex na ba pare dara jaru fi lu ñaaw